أعوذ بالله من ميلي لغير رضا ومن صدودي عما صنع أو فردا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والي ورضي الله عن شيخنا الخديم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام bokki julli di bokk taalibe yi ñuy topp ak fu ngeen mën a nekk di janoog sunu jëmm wala ngeen dégg sunu kàddu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di wax salaamaaleykum wa rahmatullah kàddu gi di bàyyi ko fii ci Touba ci jumaa ju mag ji ñu ngeen ko baaxoo àndeek jataay yi nga xamante ne dañ koy faral di def ngir di ci waajal bis bu màgg bi nga xam ne moom lañu ñu dëgmal di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar xam ngeen ne eh, ba safar gi teroo ba léegi ñu ngi ànd ak yéen ci ay jotaay yoo xamante ne eh, dañ ci jublu rek di gën a xamle eh, Serigne Touba. waaye di gën a xam ne liggéeyam bu màgg bi nga xamante ne moom la ñu bàyyil te nga xamante ne dañ ko war a xamlu ngir mën a xam nan lañu mën a def ba gën cee mën a jariñu ndax moom waxoon nañ ñu ne xéewalu yàlla guñ yàlla xéewale waaye moom itam mu waxal boppam ne moom njariñ la loo xamante ne ànd ak genn lor ngir mën a jariñu ci njariñ loolu mën a xéewlu ci xewal googu day laaj ñu koy xamlu loolu nag ànd ceeg ñoo xamante ne seenu yëngu ak seenu dal lépp dañ ko jooyal jëmale ko ci gëstu jëmmi sëriñ bi ak wooteem bi ñooña di leen dalal ca yooya ngir ñu ciy laabirante ak mbokk yi day tax ñu mën a gën a xam nan la ñuy jariñoo ci Sëriñ Tuubaa ak li mu indi lu mu doon tey tànn nañ ab tomb bu ñu war a waxtaane mu jëm ci Sëriñ Tuubaa sëñ bu mag bi ak liggéey nan la ci doon tàggatee ñi mu njëkkoon a àndal ak ña topp ca gannaaw ñooña waaye nan lañu ci soññee ñun ñi nga xamante ne ñoo ñëw gannaaw bi bañ mën a waaxu wala jéego jëm ca euh, topp tànk ña nga xamante ne ñoom la tàggatoon ci liggéey ñu ngi ciy dalal docteur Serigne Khadim Silla alxaaj mi nga xamante ne ñëpp xam nañ ko ci jotaay yu màgg yi nga xamante ne dañ koy amal ci yoonu murit waaye ci lislaam bi yëpp rek mu nekk nit ko ku ràññeeku ci liggéeyal Sëñ Tuubaa rawatina ci tasaareem njàngaleem li ñuy wax vulgarisation mu ci jàmbaar lool ñu koy dalal lii nag ab tombam la daanaka bu xam ne xam na ko lool muy jëmmi sëriñ bu mag bi ak liggéey sëñ xaadim muñ bëggoon a xam liggéey ban wàccuwaay la am ci sëriñ bi <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu <clears throat> ngi am mbégte d'abord ci jataay bi ak mm-hmm. dalal gi nu dalal eh, waaye ci tomb bi nga xam ne tey moom nga bëgg ñu waxtaane ko wàccuwaay bi nga xam ne moom la liggéey am ci njàngaleem Serigne Touba wàccuwaay bu kawe la eh, boo xam ne dafa feeñ ci mbindam mm-hmm. waaye dafa feeñ ci ay jëfam mm-hmm. feeñ ci li mu jëflu itam ndax ba mu waxee rekk ne wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi gayri wahami nee na sakku alal ju lew muy njàngale ñaari baat yu boole yoo xam ne njàngale mu xóota ci nekk mm-hmm. muy yëmut ci wax solos liggéey mm-hmm. waaye dafa wax solos liggéey waaye waxit liggéey bi mën a am solo soosu muy wax mm-hmm. aw liggéeyin waaw wax na aw liggéeyin wi nga xam ne tey moo moom lañuy jàppee ab liggéey ci lislaam mu ne moo tax waxtu wu waxee liggéey rek daf koy idaafa ci lu lew sàkku lu lew lay wax kasbul xalaal lay wax iltimaasul xalaal mu ne nag sàkku alal ju lew farata la ci bépp jullit kon nag iltamisul xalaala kulla saa mhm. ndax bi ak lihi yabdul uda wala yabdul ula mhm. wa taa mhm. mu ne njagam nag loolu farata la kon maa ngi leen di digal yéen njaboot gi yépp ngeen def seen itte ci di sàkku lu lew waxtu wu nekk ndax consommer consommer lu lew kat mm-hmm. moo leen di may mm-hmm. ak njub mm-hmm. waaye moo leen di may wàccuwaay ci sunu borom subhaanahu may leen wàccuwaay ci seen biir biiri nawle ndax as gor si lépp war ci moom te la ko war ci moom mënu ko kooku du tekki ci biir ay bokkam du tekki ci biir diineem waaye ki nga xam ne itam maanaam sàkku na ba am ab am am waaye nam ko amee sellut dëppoo tëkk li lislaam bëggit muy jaay lu ñuy tere wala njublëng ak naxaate ca la ko amee ba ñëpp xam ko lu mu am lu ne xam nañ ci njublëng ak naxaate la ko amee walla ci yëngutu ci loo xam ne ñëpp xam nañ ne du lu lew mhm. kooka tey xam nga e du ca mën a am ak njub mhm. du ca mën a am ngërëmal yàlla mhm. ak lum ca def ci loo xam ne blanchir ko la ci jublu ba ci joxee addiya walla mu tabax ci jumaa walla ci jàkka itam loola du ko may ngërëmal yàlla waaye du ko may wàcc waay itam muy ak nawlonte ak nawla ak weg goo xam ne eh, ay ay nawleem hmm. danañ ko ko wekk hmm. ndax say nawle yi nga nekkal tañ xam ne amin yi nga am moom sellut rafetut hmm. loola moom kenn du la ca naw moo tax mu ne bi ak lihi yabdul du wa taa nga gis ne ca yaamu taallixoona ca xasida gi nga xam ne eh, daf koo jagleel taalibe yi moo tax yaa mu tax àllixoona la yéen ñi ne da aju ci man déglu leen ma wax leen ko aju ci man nu muy mel mm-hmm. ba bu ma noppee ngeen xool seen bopp mm-hmm. bu ngeen gisee melokaan woowee ci ci ci seen bopp mm-hmm. ngeen xam ne kon seenu aju ci man lu dëgg la bu ngeen ko ci gisul ngeen xam ne ajoogu leen ci man loola ba muy wax di wax di wax ca nas di ajoo ci moom xusul xalaala ca la bokk watrukul xarama fal tatlubu bil wara'il marama daanne man axasal xalaala arda rabba amal xarama fa huwa yurdi xibba képp koo xam ne kat alal ju lew nga sàkku ba am ko loo ca am ca ngërëmal yàlla waaye lewut na ngërëmal saytaane ak ko saytaane gemb nga ca mën a am waaye foo ko mën a dugalit doo ca am ngërëmal yàlla doo ca am ngërëmal ku yàlla gërëm an bokk na ci critères yi tax nga mën a xam ne kii ku aju la ci señ bi waaw muy fàggu yin fàggu yin wu lew waaw bi nga xamee ne loolu wax na ko ba àggali mhm. e mu ñëw nag xamal nu ne ab jullit moom mhm. liy nekk raison d'être ci kaw suuf mhm. war a nekk taxawaayam te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ko mooy def yitteem ci fàggu lu koy may texeeg ëllëg waaye diir muy nekk fii ci kaw àdduna nag nekk fa xalifatullahi fil ard nekk fii kuutaayal sunu borom mu fexe ba lay yéwénal aw nekkinam fii di ko may sutura di mën a tax mu def warugar yi ko war ci boppam war ko ci ak njabootam mm-hmm. war ko ci biir diineem te alal di ko def loola it mu man koo am ci amin wu sell loolu mooy waru goru ñaari ñaar yooyu mooy waru gor mooy raison d'être nit ki ci kaw suuf loolu nag seexal xadim wax nag ne al ilmu wal amalu nag jawharaani jawharaani li xayri daareen yajlubaani mm-hmm. Mm-hmm. waxaat feneen waalam axi bi anna ilman wa amal huma wasilata saadit ajal mm-hmm. waaye bu njëkk bi mm-hmm. li xayre yi daare yi ni dafa mm-hmm. nekk xarina boo xam ne moo la wan kon ban xam-xam ban xam-xam la yow comme li xayre yi daare yi ni kon da ngay xam ne al ilmu foofu day ëmb xam-xam bi yéwénal sunu ëllëg muy sunu jaamu yàlla gii defar sunu ëllëg waaye xam-xam bi yéwénal aw liggéey bi nga xam ne mooy yéwénal liggéey mhm. mooy moo aju ci liggéey bi yéwénal sunu nekkin fii mhm. kon al ilmu mhm. dafay yor ñaari sens xam-xam bi nga xam ne mooy yéwénal jaamu yàlla moo aju ci jaamu yàlla kii yéwénal sunu ëllëg ak xam-xam bi nga xam ne dafa aju ci liggéey bi nga xam ne mooy yéwénal sunu nekkin fii waaye alaamalu yi da ngay gis ne kon mhm. dafay am yor ñaari sens muy jaamu yàlla gi yéwénal sunu ëllëg mhm. ak léggéey mi yéwénal sunu sunu tey parce que li xëyre yi daare yi la xëyre daare ni waaw nga xam ne al ilm foofu day nekk la science d'une manière générale d'une manière générale waaw nga xam ne science bi jëm bopp lépp lay doon d'une mhm. manière générale moo bu ko defee day ëmb liy defar diine ji mhm. xam-xam bi aju ci li yëwé eh, li yëwénal sa jaamu yàlla mhm. ak xam-xam bi nga xam ne mooy laltaay sab liggéey mhm. eh, su ko defee nag eh, ci biir loolu mu mu wax ci leneen lu lu yaatoo yaatu waxaatit faneen foo xam ne ci pour ñu am indépendance total xam nga di mu santaane liggéeyu jumaa ji danaa koy faral di wax toujours te sant taalibe yi mhm. topp bi aw sasu nit ak juróom-ñett mhm. biñ ko dajalee e, ba mu mat lim bu takku mhm. ba mu dajale seex su mag si ngir di leen sant ak gërëm ci taxawaay bi ñu am waaye di leen soññi daf leen wax ne charte bii Balla Coro indi jële ko ci ki ñuy wax borom ndar tegan ko ci yolomal gim nuy yolomalal nu war a mën a liggéey liggéey bi mm-hmm. am na loo xam ne su ma ko ko nangulan waxuma laa dama teg charte bi waaye dana liggéey jumaa ji sax ci alali boppam mën naa liggéey jumaa ji sax ci alali boppam mm-hmm. eh, ci diir bu gàtt mm-hmm. waaye a ko jëralul waaw lim ko ci teg gannaaw waaw daan ne nag kon nag maa ngi leen digal lépp loo xam ne lu aju ci luy yéwénal seen mbiru diine ak seenu nekkin fii ci kaw suuf te alal di ko def mhm. na ngeen sol seen dal laxasaay wut ko ci amee anam gu gu gu sell te mooy liggéey hmm, amal ko seen bopp waaw waaye fu seen kàttan yam nag mhm. ngeen xaar say allahu baada usrul yusra te moytu di ko jël ndimbalal koo xam ne it bu fajee seen soxla yit la ngeen koy jënde du ko jar ndax benn ngeen jaay seen ngor wala seen diine moo xam ne am na yett yëf yoo xam ne nag hmm. yett yëf yoo xam ne lenn koy maye hmm. muy moom sa bopp moom sa bopp la liberté hmm. dem ak sa bopp muy l'indépendance l'indépendance sa bopp ku ba ku la wër te eh, eh, yàpp du la yàpp muy la dignité nee na loolu lenn lenn na koy may muy manal sa bopp. <laughs> waaw muy am autosuffisance. ci li nga mënta ñàkk. ndax nee na yéen ay wax ne ku la mënal sañal la waaye bu keroogee yàlla nañ ka la war a. sañal yàlla war a sañal. ndax nee na ki la mënal sañal la tey ku la war a sañal ayut. waaye li mat a moytandiku mooy ku la wërta sañal di la sañal ngir mënal gum la mën. Mm. waaye sëñ Xadim sëñ Xadim dellusiwaat waxaat loo xam ne. Mm-hmm. Eh, bi ñuy dugg moom la mooy bayit wuñ doon waxtaanee démb moom la sëriñ eh, eh, Abdou Lahat Moutalib mhm. doon wax léegi mhm. ne mbaa loola xam nga sëñ bi dafa wax benn bayit boo xam ne bu yéemee mhm. dafa wax ne amal bataalatu wa yi al umr min xayri ma yufti fadaahu yadur la dafa qualifié chômage volontaire waaw volontaire waaw ko qualifié comme épidémie. comme épidémie boo xam ne dafa waree ndaw loo xam ne dafa toll ci liggéey. Mm-hmm. amul benn handicap. Mm-hmm. bu tee mu mën a liggéey. Mm-hmm. te li war ñëpp war na ko. te soxla na ko am. tey daa jàpp ne da ko war a am. ba noppi te du liggéey. lu may di passé dunam ci ay caaxaan ak ak <laughs> lu amul njëriñ nee na danger. danger danger public la. danger public bi nga xam ne moom la épidémie am. la am waaw xam nga kooku. moom soññee na soññee na. ko nga wane na ne wane na ne kon kon kon kon loolu. loo lépp nag moo tax waaye muy li sëriñ bi mu defee loolu ba àggal nag. Mm-hmm. loolu ay théorie la. Mm-hmm. yoo xam ne kon wane na maanaa solos liggéey. Mm-hmm. jàngale na ko. wax wàccuwaayam nawariyan ci wàllu teew ak wàccuwaay bi mu am ci lislaam waaye yemut ca loola nag. waaye dafa nag tàggat nag. ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci liggéey nga xam ne daara yi nga xam ne ñoo nekkan daara yi tarbiya dafa nekkan yetti yëf muy eh, fexe ba yar nit ki ci wàllu ruuxam ak ci wàllu jikkoom muy tàggat nit ki ci jaamu yàlla waaye defar ko ba mu defaru ci wàllu jikko sellal jikkoom ak ruuxam waaye toqi ko nag ci liggéey waaw tàggat ko ci mu mën a liggéey mu mën a mm. liggéey tàggat ko ci mu mën a liggéey mm. ah, am jom ba mën a liggéey ba mën a sukkandiku ci boppam mm. loolu moo waral eh, naka noonu communité murid bi mm-hmm. mu bëgg mu nekk communauté boo xam ne tey mën a sukkandiku ci boppam pour mën a ñag boppam euh, ba euh, du dugg ci euh, lum wërta dugg waaye kenn du dugal ci moom it lu wërta dugal ci moom waral gis nga li mu daal di def muy li ñu tuddee mhm. décentralisation ak aménagement du territoire mhm. loolu toit yi Sénégal yi ñu ngi koy tàmbali <laughs> jox li mais ba mu koy def mhm. toj ay àll yoo xam ne yu yaatu la mm-hmm. yoo xam ne kenn mësu koo ba kenn mësu koo bay mm-hmm. te itam du suufu kenn kuñ naan lii sama maama ju di la wutal ay limite yu mel noonu déedéet fu kenn mësta teg tànkam la mm-hmm. mu toj ko ba mu yaatu mu aménagé ko waaw mooy désenclavé ko bañ bañ bañ mën ko ci la fa war a nekk lépp mu def ko fa ba noppi nag lancé appel ñi nga xam ne ñoo nekkaan ci yeneen raison yi te ay taalibe te amoon problème mu espace te aada tënkan leen. waaw wala ay moyens tënkan leen ndax aada ji mooy bool bool bi moom gàddaay nekki Saalum Saalum bëgg ko. Mhm. Saalum Saalum bi gàddaay di muy nekki ab. waalo <laughs> waalo ab jolof jolof kenn ku nekk da ngaa bëgg toog ci sa ci sa zone de confort. doon telee dem ngaa dem ba am ay difficulté parce que espace bi doyati la. Mhm. Euh, doo fa jóge ay moyens it boo fa bëgg na jóge it gàddaay yaag sa sa sa njabootu bopp képp sa soxna ak sa ñaari doom mm-hmm. ngeen di dem ci manding boo xam ne maanaa maanaa ay ay ay ay ay ay rab yuy fàdde lépp fa nekk amul ndox amul dara loolu mm-hmm. mënoo mooy yooyu Cheikh Al nag bi mu ñëwee àll yooyu ñu doon toj e, fa tabarakallahu mu toj ay àll yoo xam ne ay milliers d'hectares lay doon mm-hmm. la ñu lancé appel nag mboolem ñi nekkan ci yeneen gox yépp ci ay taalibe eh, mu digal leen ña ca amul ña ca am ay jafe-jafe mu digal leen ñuy gàddaay eh, fekk si ko wala ñoom ñu gàddaay sax ci seen coobare bopp fekk si ko ku ñëw ñu wan la daara jooy jàngale say doom alxuraan daaray xam-xam a ngi nii eh, ab teen booy booy booy naan a ngi nii jàkkee a ngi nii yooyu jaamoo yàlla waaye désenclavé nañ euh, ko itam mhm. ba mboolem quatre coins yëpp xal nañ aw yoon boo xam ne métropole bi gën a jege bu ko relier ak loola nga am nag benn l'idéal boo xam ne moo nekk sa référentiel boo xam ne ñëpp ci la ñuy rafé référé wu mhm. et loolu lépp muy barrière euh, dégg nga sociale yi doon kii yëpp daal di deñ loola euh, fa tabarakallahu mu def ko mhm. ba bi mu fi jógee ministère du plan dans les années soixante dix euh, dans les années euh, euh, trente. Hmm. rapport bi mu mujjee bind dafa wax ne Cheikh Amadou Bamba bàyyi na fi ñaar téeméeri village fondé hmm. waaw. macha allah fondé par la communauté mouride. Hmm. et pour des raisons purement socio-économiques. macha allah loolu. boo demee ci mbindum Philippe Couti ak Obarien yëpp da nga ko ca fekk dana mhm. danañuy wane ne jamono yooya soixante dix pour cent ci production nationale mhm. ci wàllu agriculture mhm. murid yi ñoo ko ñoo ko kii ñoo ko def ñoo ko def nga xam ne nga xam ne ñoom ci résultat wu théorie bale mu amoon. waaw mettre na ko en pratique. da ko mettre ba ñu mën a ñu mën a def benn production boo xamante ne sur le plan national ñëpp dañ ciy mën a jariñu. loolu xam nga dafa coïncider dafa coïncider ak bi ñuy introduire culture arachidière. waaw tubaab yi ñëw gis ne kat Sénégal réew la moo xam ne amagul pét gisuñu fi pétrole. pétrole mhm. feeñagut. Mhm. Euh, amul gaz. Mhm. amul or. amul euh, xaalis. Mhm. bu nekk ci suuf. Mhm. mbell moo xam ne kon seen économie ci mbay la. Mhm. ta mbay mi ñuy bay mbay mu ñuy consommer fii localement di ko kii waaye nekkagul mbay mu ñuy commercialiser. Hmm, kon nag ngir ñu mën a développer réew mi. il faut mu nekk produit boo xam ne dañ ko soxla bitim réew. man koo commercialiser mu mën a andi om la saaba muy mën a andi euh, ay koppar ca la ñu introduire cristal arachidière parce que booba soxla nañ seen usines yooyu huileries yi hmm. soxla nañ loola hmm. waaye mu nekk loo xam ne coïncidence it na tawfiix suñu borom subhaanahu ci sëriñ bi ndax booba euh, la mu laaj bassin arachidière bi yaatu na waaye nag la muy laaj diggante la kajoor hmm. ak bawal espace yooyu amatu ndax dëkk yi Euh, croissance démographique bi ak concentration bi tax na dëkk bu nekk digganteeg sa morom moyen de deux kilomètres la hmm. famille bi famille yi seq ko da ngay dem a dem a dem ba amatoo espace. waaye comme booba lu ñuy bay lekk rek la dugub. ak sëbëg yooyu. waaye bu ñu bëggee nag ay hectares yu yaatu. Mhm. yoo xam ne loolu xajatu foon. mais taw féexu sunu. yooyu sanc lay laaj andi ñu andi ko nag. Uh-huh. mu mu mu mu aju ci loolu. nga xam ne fa tabaarakallaahu et loolu lépp nekkan loo xam ne ci ci ci ci wàllu nga xam ne ci wàllu mbay. Mhm. loolu di continuer wàllu coopérative coopérative Cheikh Amadou Fadal Cheikh Mamadou Mamoun hmm. si Modowa Balla Sëñ Jagaay ñoom ñëpp tey nga xam ne ah. ni ñu révolutionné wàllu mbay hmm. ba fa tabaarakallaahu lépp loo xam ne lu ñu am ci ay projet hmm. lépp tey liy génn ci biir gerte gi gi ñuy bay ci lañ koy financé fa tabaarakallaahu muy loo xam ne tey ci wàllu liggéey macha allah waaye ci wàllu formation professionnelle. Mhm. bi ñu doon wax. Mhm. loolu bi mu nekkee ci àll bi la. Mhm. chiffre boobu tey fi mu toll maa ngi ci c'est cent étude bi ma def diggante eh, maanaa maa ngi ko def maanaa diggante entre deux mille cinq ba deux mille seize bi uh-huh. étude bi ma ci defaat fii ne maa ngi ci c'est cent quatorze yoo xamante ne ñoo murid yi ñoo ko murid yi ñoo ko sos ci 14 réew Sénégal benn bu ci nekk da ngay dem ka ko sanc fan la ko sanc ak yu yëpp mi ngi leer nga xam ne da ngay dem nii yooyu ah, moom c'est des des études yoo xamante ne ay études la yoo xam ne c'est des études yoo xam ne tey fia yoo xam ne fiable étude de terrain yoo xam ne tey argumenté tabaarkalla loo xam ne ñoo ko <coughs> mais liñ doon waxtaan léegi maag Abdoul Ahad hmm. li gën a yéeme mooy bi mu ñëwee njaareem hmm. bien que njaareem ab àll wër na ko waaw man na faa samp ay daara hmm. waaye pour nag façon jàngale liggéey hmm. xam ne liggéey nag yemul ci mbay tarbiye bi mu leen di tarbiye ci wàllu liggéey pour ñu mën a sukkandiku seen bopp waxtu wu nekk njaareem dafa yéeme dafa c'est-à-dire ci réalité milieu social boobu capital régional la waaw capital régional la léegi nag kon taalibe yi dañoo war di jo boole jaamu yàlla gi uh-huh. muy tarbiya ruhiya bi mm-hmm. ak xulixiya bi muy def mm-hmm. da ciy boole tarbiya badaniya boo xam ne mooy tàggal leen ci liggéey mm-hmm. boo xam ne tey eh, danañ ci mën a sukkandiku ba yor seen bopp waaw liggéeyin adopté ak ak social boobu loolu moo waral bi mu ñëwee njaarim eh, gis nga sëñ Maxtaar kii sëñ Mad Lamin bi ñu koy bind da wax ne ña doon féetoo mbay ñu néew lañu. Hmm. loolu tu tu daanaka sax amul lu nekkut loo xam ne la ah. sax lu significatif hmm. eh, eh, ab tookër la bu ndaw rek boo xam ne tey xëy na hmm. ñàmbeeg ay yëf yëfaani liggéey mag yooyu waaye la nga xam ne moo doon liggéey ba dëgg dëgg dëgg formation ko mooy corps de métier yi nga xam ne yëpp da koo aman ci biir dëkk bi muy cordonnier yi am na oh, fa ah. boo xam ne eh, li yéeme tey sunu uude yi defar dàll yi boo demee ci rue vingt deux wala rue ci Ndakaaru hmm. tey italiens yi ñooy jënd der yi fii surtout ci période màggal bu jàllee ñu ramassé der yi yóbbu ko transformé ko wëlbati jaayaat ko suñu uude yi léegi nag njaareem sëñ Modou Mamoun nee na ñun atelier bi ñu yoroon muy cor muy muy muy kuute gi ñu yoroon foofa mhm. nee na gàtt ya ñuy rey mhm. muy xar yaag nag yaag waaw euh, ah, mais sëñ fu mu nekk mbooloo mi dafa daan nekk waaw yooyu yëpp tey nee na ñoom ñoo koy transformé ñoo koy lëkkunde ñoo transformé ko ba àggal liggéey ci ay dàll mhm. dàll yi sëriñ bi sol muy karbat yi ak neppe yi suñ xaasa ko daan liggéey nee na maraakis yi suñ mën maamun yi muy jox kado kii maa ko doon liggéey jaafare yi nga xam ne tey moom la ñuy denc téere yi uh-huh. téere bi ñuy teg ci taabal nee kooku moo tudd jaafara mais li ñuy tudde maxtume waaw téere la boo xam ne sac à cuir la boo xam ne kii daan déplacé wu dañ ko mm. uniquement pour kuy déplacé wu la woon mm. tey nga ah, deg sa téere xam-xam uh-huh. wala téere alxuraan booy waqafe wala sa téere xasiida mm-hmm. rangoo ko dugal ko fii du feeñ ci sa ron paqutaan ah, jël sa tur ki def ci boo demee ba war a def sa waqaf loolu la woon loolu lépp fa lañ ko doon liggéeyee mu amaat ba beneen atelier boo xam ne menuiserie la hmm. boo xam ne moom itam eh, du caagee ne bant yu ñu traité ba mu àggal déedéet buuti garab gi la ñuy dagg noonu andi am na équipe boo xam ne ku ñuy wax Madoune Fall moo ko jiite akub groupe hmm. ñoom ñoo koy taayee ba mu àgg ñu jël diw coton diw ko ci ba mu ba mu ba mu niin ñu suul ko ci suuf muy technique boo xam ne bu kéemaane <laughs> ba mu am 15 jours ñu ko génnee nee lay mel day xong ba noppi ta tey rataxt bu aman santaay du am. am doon nañ def liggéey yoo xam ne yu industriel la. industriel ak yoo xamante ne yu yu limité wu léegi nag buñ noppee ca loola jox ko nag sëñ Cheikh Fatak ko. ak sëriñ Mor Mbaye Cissé Nadiar Mor bay Cissé mu mag ma. ak sëñ Moudou Amar doomi sëñ Paate Amar. Hmm. ñoom nag ñooy jël. e defar ci ay armoire defar ci ay gaal yi bii bi denc téere yi ak i lal ak i tablette ak lépp loo xam ne lu ñuy def ci dénk nga xam ne ay étape la ñi nga xamante ne ñooy dem jëli matière première bi waaw ca àll ba dem dagg ko indi waaw du bokk ak ñi koy ñi traité ñi koy traité bokk ak ñi nga xam ne ñoo koy ñoo waaw léegi lool noonu mu amee mm-hmm. noonu la aman ci eh, mu amaat beneen atelier boo xam ne ñoom it ñoo yor lépp loo xam ne lu jëm ci euh, basang yi mm-hmm. euh, muy romb jaan mm-hmm. basang mm-hmm. tóoj njoowaan lépp lu ñuy lal ci suuf daal ñoo koy ràbb ñoom ñoo koy ràbb meuble la ñuy doon waaw maanaam meuble la naka noonu tóoj yi saaru lalu lalu bant lay doon uh-huh. boo xam ne moom it dañ koy bu nawetee moom la ñuy teg pour bañ yi kii yooyu uh-huh. euh, ak lu mel ni njoowaan ak même wantaay yi nga xam ne moom leen uppi sëñ bi nga xam ne dañ koy eh, dañ koy fabriqué nga xam ne da nekk ci gannaaw di pousse nii ah, loolu lépp muy dem ak a ñëw muy a ñëw mel ni ventilation ah, loolu lépp dañ ko doon liggéey foofa loola itam sëñ Mor Talla Fall mm-hmm. ak sëñ Mat Diouf mu sëñ Aliou Diouf Lambaye ñoo jiite woon atelier boobu mu amaat baneen loo xam ne mooy mooy charpentier yi eh, nga mm-hmm. xam ne tey muy sëñ Mbacke Diouf nga xam ne lépp lu am ci habitation mm-hmm. tappaatu seng yi ci kër ga baraag ya kaas kare ya lépp loo xam ne dëkkuwaay yi amoon ci biir kër gi yëpp ñoom ñoo ko doon liggéey te sëñ bi leen sëñ Basiiru nee na guddi lañ daan liggéey ñoom sëñ bi moo leen di taxaw ñooñu ay génie civil lañuy def daal ñuy sensé di kéegee ne guddi gu nekk ñu transformé toxal lii defal la sëñ bi wax toxal leen fii yóbbu leen fii soppi leen lii mm. ñooñu di ko liggéey mu amaat ñoo xam ne ci wàllu ñaw mm. Euh, sëriñ Abdou Khadir sàll couturier nga xam ne moom itam moo yoroon atelier booba di ñawal sëñ bi waaye sëñ bi di jël ci njabootu doomi kilifa yi di ko jox bu di leen jàngal ñaw di leen tàggat di leen tàggat ci loolu ci ñaw waaye mu amaat eh, ci biir kër jigéen ñi moo gën a yéeme jigéen ñi ñoom dafa leen a waxal ne liggéey bi hmm. la ci jiitu mooy ñii ñu leen jox muy tul tànk yi ngeen tàggat leen ci jaamu yàlla hmm. ak liggéey bi jigéen baaxoo def kër muy liggéey kër muy diggante togg ak fóot ak paase ak ya ci ajo hmm. waaye nañ fexe nag ba alxuraan na jiitu ci ñoom hmm, mu amoon daaree alxuraan yuy jàngale muy soxna say ñoom soxna Aminta hmm. Jobe ñoom ak ñooñu waaye mu am ñu leen di jàngal xam diine muy soxna Fat Jaxate way juru suñu saaliwu ak soxna Aminta Amar ba muy nekk ci kër ga leen daan jàngal ba ay risaala ak yooyu waaw waaw soxna Mati Jaxate mii di way juru suñ Mustafaa Saaliwu ab sëtam nee na ma nee na ko soxna soxna soxna euh, fat jaxate moo ko jàngal risaala est-ce que euh, soxna aminta amar mii mhm. daan jàngale moom sëñ bee ko jàngal masaalikul jinaan gis naa sax docteur ahmad lo ci kéem bi muy wane ne ñu ba euh, waaw am mu mel na ni fedd di leen am na ñu bari ñoo xam ne dañ daa dañ ci daan dem E, di ko kii di mu dee doon jàngal sax kii ndax li ko sëñ bi jàngal moom da doon jàngale waaye da leen a waxan ne bu loolu jàllee nag lu ngeen ca mën a dolli rek ci ab liggéey boo xam ne hmm. da ngeen ca mën a am seen sutura moo waral am na ci ñoo xam ne e, dañu daan rapplu hmm. muy saako yu wëtteen yi ñuy andi dañ koy décortiquer hmm. jël grain bi moom lañuy ñuy def diw di ko jëfandikoo ci lekk ak di ko jëfandikoo ci ci ci dénk yooyu muy lu yéeme waaye coton ba moom lañu def ay poqe ay bobile hmm. di ko rek ñu recueillir ci ay ràbbkat ñu di ko def ay ay sor muy ay daraay rabal gis nga ko ah. gis nga sëñ Cheikh Modou nga <laughs> photo ah, mag ñëpp ay daray rabal lañu hmm. dañ ko daan am hmm. kaala sam samba sembe soxna yi itam am moom itam seen motifu bopp ay ay ay col goo xam ne col ko goo xam ne moom itam lu ñu ràbb la mhm. ba ci séri yi nga xam ne mooy séri rabal yi ñuy muuroo gis nga soxna yu mag soxna mos soxna ñoo ñoom ñoo ñëpp tey loolu lañ doon yor mais njagamaar yi ak ak ak jeeg yi itam hmm. ñoom itam ay taybaas ak i camisole yi séri rabal loolu lépp ci biir kër ga am ñu mel ni soxna Aminta Jobe ñoom hmm. ñoom dañ daan yónnee ca dëkk ba ay ay coupons yoo xam ne coton la dagg ko nag di ko suub hmm. rombal hmm. palmaan ak ak ak baxa yooyu yëpp nag nekk loo xam ne eh, la ca daan génne hmm. ci ay koppar pour lépp nekk en interne kilifa yi sëñ Aliou Touré sëñ Issa Dieng sëñ mën mhm. Mandoumbe mhm. sëñ Balla Faali mhm. kilifa yooyu ñoo ko daan ñoo ko daan sàkku ci soxna yi di ko jënd eh, di ngir ah. ngir ñu mën cee am mooy commercialisation bi commercialisation bi ñoom ñoo ko yore hmm. mu nekk lépp en interne léegi ñu di ci am teraanga waaye nga gis ci la leen li nga xam ne mooy investissement waaw ci wàllu sàmm ak ràbb ak commerce ak yooyu yëpp itam hmm. et loola ba mu amee hmm. Eh, soxna Fat Fati Xujja way juru soxna benn gaabu moom mi ngi woon nekk ngaabu waaw mu ñëw bisu tam xarit tombe ak eh, mbokkam yooyu ñoom ñuy joxe seen contribution boo xam ne bu yéeme man lépp lu ñuy laaj ñu man ci góor mën joxe ah, léegi nag mu xam ne lii ñuy liggéey moo tax ñu man ko mu hmm. mu sàkku sëñ bi ne ko moom de mu ci amee ndigal moom itam nii ñuy def sëñ bi ne ko bu subaa ci waxtu yi na nga ñëw mu ñëw mu jël ñaari mbuus jox ko benn bu ci nekk bu fees dala ci xaalis bu si gàtt yi hmm, hmm. ne bii boo demee nañ ci jënd ay jur gi gàtt ndax yow foofee nga nekk euh, man nga faa yar jur gu gàtt ay xar ak i bëy ak i ganaar hmm. nga jënde ko lenn li li ci des nag nga def nii wut ay ay ay ay ay ràbbkat yu lay ràbbal nga boole de rablu ak di suub mu ne ko lim bii ma la jox nag waxtu woo demee ba di ko soppaxndiku ba am ca tono joo mën liggéey téyal tono ji liggéey sal te delloo sal ma ndey ji nga xam capital bi moom investissement <laughs> investissement ah ba mu ko defee ba am loola delloo mu téye ko ba mu kii daal di muñ ne ko Fatima eh, delloo ko boole ko ak la nga la nga yoroon dama la doon wan aw yoon rek ndeysaan gis nga eh, waaw waaw ñoom entrepreneuriat bi mu leen di leen di jàngal loolu lépp tey nga xam ne kon xeet kon amul benn secteur. boo xam ne sëñ bi bu waxee solo su liggéey ba noppi. du ko fa pratiquer. maanaam tàggatu ci nit ñi. Hmm. lépp loo fi gis tey mouridisme am ko ba ci 1924. Euh, euh, hmm. et bi nga xamee ni euh, santaane na nit ak juróom-ñett pour ñuy waajal jumaay Tuubaa ji. Hmm. projet bi. dafa tasanteeg sëñ Babacar Thiergane. ay doomam ay dongaam yoo xam ne waxtu noor xam nga noor donga yi ñaare bu nawetee la ñuy bay mais bu nooree eh, dañuy eh, sàkket ak defaraat kër yeeg yooyu liggéeyub kër gi mm-hmm. ba ruuj jot ñu dem ruuj yi mu ñëw nag ne ko man sama donga yi dañoo ëpp doole liggéeyub noor bi te bëgguma ñu taxawal mm-hmm. ma doon laaj ndax fu mel ni dëkk bi ñuy wax Ndakaaru ndax daal danañ fa mën a dem noori fa di liggéey hmm. di daan seen doole hmm. eh, ba jot sëñ bi daal ne ko naaw daal di bind wala si jaxala lakum arda dalula famshu fi manakibiha hmm, wa kulu min rizqi waaye nag naa leen nañ ñëw nag ma dénk leen bala ñuy dem ñëwee ci gannaaw fenêtre bi mu ne leen bu ngeen demee na ngeen góorlu bu baax a baax xam li ngeen bàyyi gannaaw ak la ngeen yóbbaale. Mm-hmm. fexe ba bu leen moyta di koo jaxasoo kenn koo xam ne day soppi seen melokaan ak seenu doxin mm-hmm. aka def ci yéen lu wuute ak li nekkan ci yéen. Mm-hmm. ku ngeen du dolli diine wala jikko bu leen jaxasoo ak moom. ak jom. bu ngeen demee nag li leen tax a jóg lépp liggéey buñ leen gaaral. te ngeen man caa am la leen tax a jóg mhm. te muy lu sell te lu lew moo xam lu xeebu la lool wala lu metti lool te diis la waaye seen yaram attan na ko mhm. metti waayu liggéey bi wala xeebu nga ba mu jaar seen digganteek moom li feek man ngeen caa am la leen tax a jóg mhm. est ndax as gorkat ci ab jullit bu toll fi ngeen di toll lii leen yëkkati tax koo jóg liggéey bu xeebu te metti tam man caa am la ko tax a jóg moo gën tàllal ay loxo di ko laaj di laaj ndax tàllal ay loxo di ko laaj kat hmm. ñett ñoo ko sañ hmm. du gën ca kenn hmm. koo xam ne ak laago da koo dal moo xam mag la moo xam ndaw bu mënta liggéey ci cëri boppam te la war ñëpp war na ko kooku jullit yi buñ defee lañ war a def waruñoo xaar sax mu dee leen laaj ñoo ko war a fekk dimbale ko buñ ko deful nag sañ naa taal loxo laaj leen lum suturuloo wala mag moo xam ne dem na ba dooleem jeex mhm. ba mënatuta liggéeyal lu ko yor mhm. te la ko waran wàcc ko te amul ay njaboot yu ko ca mën a wuutu mhm. kooku it moo kee ñoo bokk ab atte ka ca des nag la muy laaj moom du lum war a jugal ci boppam mooy góor yàlla gu jóg laxasaayu jublu boromam di liggéeyal yàlla kon hmm. bu sibbee ñalaxasaayu ànd ak moom hmm. jaayante ak moom jox ko boppam ne ko loo subal yàlla danañ ca ànd ak yow hmm. kooku bu sumbalee yàlla lu mel ni néegub yàlla bii ma sumbal yàlla wala lu mel noona kon sañ naa war naa geesu ñooñee. nee ñëw leen ñu. nee na ñëw leen ñu liggéeyal yàlla bu baax lañ koy jox nag foofu la koy dugal ku dul kooka nag sañ ta def loolu. Ah. ñooña bañ àggee dañoo daal doxal loola. ña ca am kattan dañoo dem ca waax ba. ñenn ñi ci am sens dañ leen a jël ci marché Carmel. Hmm. ay tubaab jël leen ñuy liggéey foofa. Hmm. ñenn ña dem ci ca ca port ba di yanu. Hmm. muy lu diis li. ñenn ñi dem ci quartier fan résidence ak yooyu seet ca mbalim toile lu mel ni conteneur yi ngay gis ñu indi oh. yi tubaab yi xam nga tubaab bu bu bu chancé vaisselle wala ay meuble wala lu mën a doon lu ne doon te dara sikku ca da koy génne mu sànni ci tóobal ba oh. léegi nag pour du ko bàyyi muy encombré ci biir léegi nag yooyee lañ doon jël di ko di ko nettoyé moo xam ay bouteilles yi yu doon naane seen i yëf ñu raxas ko ba mu set wecc ak i palaat wala ay sel wala ay kopp wala yooyu di dem ci quartier résidentiel yi di ko jaay di ko jaay ah. seetal loolu lu xew xam nga loolu mooy lu xeebu la lu léegi mais lu xeebu loolu ci la yàlla def barke moo ñëw di ko jaay ba mujj ña wàcc ca daara ja te tàmm continuer di def loola hmm. am ci ñoo xam ne mag mag mag yi dongo bu ñëwee dañuy bu yi demee jëndi loola dañ koy jënd à goro jal ko loola mooy moo sos pàkk làmbaay yi ak salle de vente yi lépp foofu la sosoo léegi ñu naan bawol bawol waaw fekk bawol bawol du jàggeenu originaire bawol rek hmm. déedéet système la système bu ñu de liggéey naan bawol bawol yi cay bawol bawol yi ah. nga boo jógee Kajoor ñëw integre système boobu wala nga jógee Saalum foo jógee boo intégré système boobu rek loolu lañ lay jàppe muy loo xam ne tey eh, <laughs> loolu lañ lay jàppee loolu lañ lay jàppee. Mm-hmm. Eh, muy loo xam ne tey eh, loolu lañ lay jàppee. ndeysaan maanaa jàppee ne yow loolu nga xam ne système la. nga xam ne kon da ngay gis ne amul bépp xeetu liggéey. bis mm-hmm. di mën a jaar ba am teraanga sëñ bi yëmut ci. gannaaw bu mu waxee principe yi ak ndigal yeeg pratique bi waaye waaye dafa ñëw nag eh, maanaam ci pratique bi. ci entraîner nit ñi ci loolu. tàggat leen ci tarbiye leen ci wàllu yëpp. jëfandikoo alxuraan alam takun ardullahi waasi'a fatuhaajiroo fatuhaajiroo fiha ah, nga gis ne tey nga gis ne tey bu dee ci wàllu mbay gis nga gis nga bu dee ci wàllu sàmm mm-hmm. bu dee ci wàllu wàllu wàllu métier muy corps de métier ah, mm-hmm. ah bu cee bu dee ci wàllu même bu dee ci bu dee ci wàllu yaxantu ndax ndax ah, sëñ Maroussa dafa nettili sëñ mm-hmm. ma dem dafa nettili ne si mënub saa bi mu sancee Taayif nee na daf ko woo ba mu ñëw mu ne ko Momadou mu ne ah, mu ne ko dëkk bi day mel na ni manees na fee léegi manees fee nekk mu ne ko ah fi ne kay tabaarkàlla mu ne ko ah de des na de mu ne ah mu ne ko ah dëgg la ndox mi moom teen yi moom yiñ fi bënn doy na sëkk ñeenti xebla yi nu wërit fenn fu ne xàll nañ fa aw yoon wu jokkale ak dëkk bi gën a rëy mm-hmm. ca go ci ci wet googa muy penkook sawook bëj saalum bëj gànnaar mm-hmm. liñ fi gorit ci ay tool ñi fi dëkk jàpp naa ne ba téeméeri at mm-hmm. mënuñu koo jeexal li ci des nag wutal ma am kaang mu mokkal alxuraan man koo jàngale nangu koo jàngale fóori joo xam ne jeexal na téere yi baaxoo jàng ka jàngale mën koo jàngale na koo jàngale waaye na ci boole ab lawbe mm-hmm. akub tëgg mm-hmm. akub wuude mm-hmm. bu man seen métier te am jikko juñ man a jaxasoo ak ñoom ba mu ko wuteelee loola ba àggal mu ne ko nag ah li ci des te mooy nga wut nag uh, wutal ma ndaw nag lu jub rek mu ne ko ah loolu uh, ñu ubbil ko fii boutique mu yaxantu boo xam ne tey dañuy da dëkk bi soxlawoo ci lu luñ mënta ñàkk dañ ko ko ciy defal waa dëkk bi di ci jariñu moom it mu di ci jariñu hmm. mu ne ko bi mu noppee mu ne ko ndax xam nga lii lu ma ci jubloo mu naa ma ne ko ko baax ki rek de la topp am njàngal am njàngaleem hmm. ndax bi nga xamee ni jóge nañ ci man ak sëriñ ma Massamba ak Cheikh Modou mu di nu digal nuy sanc fii nu sanc sëñ ma sàmba mu digal ko fii mu sanc muy daaru karim man mu digal ma fii ma sanc muy tindoode Cheikh Amadou Fadel ndindi mm-hmm. daf noo wax ne na ngeen fexe ba foofee ngeen dem ku ngeen àndal dem fa wala ku gàddaay fekk si leen fa bëgg a dëkk ak yeen ànd ak yéen ca loolee ngeen nekk bu mu génn dëkk ba mukk di wuti loo xam ne lu mënta ñàkk la moo xam ci luy yéwénal mbirum diineem wala lu yéwénal aw nekkiinam ci kaw suuf hmm. mu ne ko loolu moo waral daara yii ndax ku hmm. gàddaay fekk si la bu doomam tolloo ci jàng alxuraan principe bu aménagement daaree alxuraan jëm hmm. dugal doom bu jógee ci daaree alxuraan ji dana bëgg fu mu dugal doom ci xam-xam corps de métier yi mooy jigéen ñi dab yi ñuy jëfandikoo ci biir kër yi muy gën yéeg kuur yéeg dab yi law bee koy def waaye liggéeyu àll bay gopp yaa la ca nekk bant lépp muy gopp yaa njur ya law bee koy def waaye weñ nga cee dem ab tëgg koy def waaye fos yi ñuy warit di mën a dem fu nekk di tukki lu sori yére yañ cee dem muy teg yaag yooyee ba ba ba mën caa dem te duñu ko yëg liggéey bu wuute la ab liggéey bu wuute la loolu nag luñ ci mënta ñàkk nga xam ne loolu lépp tey <laughs> macha allah seetal ci wàllu wàllu yooyu nga xam ne lu ci nekk lu ne maanaa orienté na ca Eh, ci commerce bi ci loolu lépp. tàggat ci ay waa këram ba gis nga maam Cheikh Anta Gaawaan. Mm-hmm. Eh, ay conteneur la daan andi. boo demee ci archives dañ lay wax ne la mooy ki gën a riche Afrique occidentale. Mm-hmm. ci wàll te moom. te ñoom fortune am ci commerce la. ci commerce moom moom. maanaa sanc na ay dëkk kii waaye mboolem dëkk yu mag yëpp. Mm-hmm. fu ci nekk dafa amoon kër. am fa nag ay magasin yu mag conteneur yi bi ñëw ci wàllu commerce bu ay nit ñoo xam ne tey ñu mu wóolu jox leen ko di def di def di def ak ñoom lii eh, nga xam ne moom la ñuy wax mudaaraba te moom la soxna ja doon def ak ak ak yonent bi ci boppam ñooñu boole koo it nag commerçant yu ndaw yi bu di leen jàppale pour ñu mën a gis nga eh, Touba Tour marché hebdomadaire bi mu ko defee pour soññi ñooña Euh, wax nañu ne euh, li tax mu nekk luuma bi gën a na kii euh, commerçant yu ndaw yi ak marchand yi buñ ñëwaa buñ kee bu jarul da koy jënd da koy jënd pour soñe leen pour encourager leen nga gis Cheikh Ibrahima Fall boo demee ci da nga ko gis ci mouridisme ndax ma du bi muy décrire Daaru Bayre mm-hmm. muy village boo xam ne proximité Thiès la nekk waaw dafa wax ne ku yéeme la ndax dëgg la originaire de la campagne la waaye comme dafa ñëw ci proximité benn kii dafa fexe ba eh, associé ñaar yëpp hmm. mooy ma ngay ma nga doon bay rip def rupture ak li activité traditionnelle muy mbay waaye mbay mu dëppoo nag ak milieu social boobu muy muy maraîchage la hmm. nee na benn tool bu mag boo xam ne lépp loo xam ne luy luy arbre fruitier ak lijim dafaa nekk mbéyum waaye nee li yéeme nag entrée dëkk bi ak surtout bi yëpp ay magasin ak boutique lañ ko def. Hmm. te nee na dañuy exposé article yi nekk ci biir pour booy ñëw di di dugg mu attirer sa attention booy génn mu attirer sa attention foog nga jënd. <laughs> macha allah technique de commercialisation. nee na moom mooy seul village boo xam ne tey mérite nañ ñu dugal ci étude boobu. macha allah nga xam ne loola. loolu eh, fa tabaarakallaahu loola lépp di loo xam ne tey eh, ci jamono ci loolu. lépp ci ndax ndax liggéey bi sëñ bi doon leen tàggat nga xam da koo théorisé. théoriser ko tënk ko ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga ko waxee ci njëlbeen mm. ba noppi mettre ko en pratique mooy tàggat ci nga xamante ne ñoom la ñoom la ñoo nekkoon ci ak ronam mm. wan leen ndax jeexital na ci projet bi Sëñ Tuubaa indi woon jeex eh, ci ci waaw ci jëmmal projet yi Sëñ Tuubaa yi waaw déet xam nga loolu li lay wan ci li lay wan kay mooy mm-hmm. jëbbal gi mu jëndal liggéey boobu mooy wax naa la ne la mm-hmm. xam nga eh, kàttan googu ñu man ba nga xam ne am nañu autosuffisance ba suñuy réalisation yëpp mhm. amu ci lenn xanaa xamanaa xamoo ne lañ dajale woon caay-caay mhm. ak tubaab gee tax waaye waral naa man cinq millions de francs ci yooyu jamono cinq millions waaw waaye contrat ba mhm. cela la ñu piégé sëñ bi parce que euh. biñ jëlee talëre muy administrateur civil boo xam ne moo nekk ancien commandant cercle bu Thiès nekk ko spécialisé wu ci wàll googu contrat ba ci boppam daf caa bokk salaire ru cent mille francs par at. Hmm, buñ koy pour buñ koy fay. boole kooku it waxee ne mouridisme ci boppam ci article numéro cinq ba ci kii ba euh, kii bi kiiw numéro cinq ba dañ caa def murid yi seen bopp ñooy jël lépp loo xam ne ay dépenses la yu lié ak projet bii daan ne hmm. frais de transport hospitalisation dégg nga ak euh, euh, indemnité d'entrée ci campagne bi. waaw yooyu yëpp bu ñu ko dugalee ci biir nag mooy pièce bi. Euh, léegi dañuy indi benn ci type de contrat bi ñu def daal. waaw parce que par étude technique. bi ñu wax ah, bu mm. ne. Mm. da gis projet bu taxaw taxawagul ñu ne nangay mili milliards. wala ah, parce que étude de solo yëpp. Ah, léegi dañuy indi benn ingénieur boobu dañuy wane ne sol bi lay lay étudier. Mm. ba xam ndax attan na poids kii bi. waaw li ñuy def léegi bu ñu ñëwee ñu ne France la jóge bi avion am. hôtel bi ñu ko jëlal. transport ñu def facture. Hmm. indi na keneen koo xam ne carrière latrique bi lay lay examiner am ci joo xam ne ndox mi lay seet ba xam am na acide wala déet waaw baax na muy pare étude technique yooyu ak salaire yooyu moo moo xëy bi si murus fay ñëwee fekk loolu lépp tey ñu ne pare étude technique bi jël na xaalis bi moo waralal mu yóbbu yoon tëlëri. Ah, te loolu min tëlëri euh, ban at la woon sax 1925. wala 26 waaw mooy de xam nga lañ ko lañ def ko kii beeg yooyu. waaw bi suñ bi génnee àdduna nag. waaw léegi ñu war a kii kii bi loolu lépp étude de faisabilité bi mu doon wax mm. pare étude technique bi. waaw lépp lépp lépp teel a xaalis ba jeex ba jeex. waaye teewut ñu jaajiwaat. waaw biñ jaajiwaatee ca lañ dajalewaat lee ñu dajale. Mm-hmm. ba gis nga noonu naka noonu jamono yi Cheikh Mouhamed Fadel jamono loolu tey muridis ba tey. lépp loo xam ne tey lu ñu am ci ay réalisation mm-hmm. mu di jumaa ji mm-hmm. di raay bi léegi lañ lañ ñu ko doon wax raay bi buñ la buñ la buñ la wax boo demee ci document bi mm-hmm. dafay dafa doy waar ci kaw maanaam maanaam li nga xam ne parti bi sëñ Mourou Moustapha li mu ci jëlan moom ak taalibey murid yi eh, da nga dool xam sax doo mën a na ca loola nan lañ ko mën a mën a mën a kiiwa ci jamono yooyu ci jamono ñu jóge ca ba fam àgg ca loola Cheikh Modou Fadal ñëw ci jamono yi yëm ñëwee moom itam waaw ci biir circonstance yu yu yu compliqué circonstance yu liggéey ba mu agsi fii mhm. bi mu fi jógee ji nga Cheikh Abdoul Ahad léegi la ñuy wax naa yokk wi ni mu ko defaree biñ koy laaj léegi bi may laaj léegi tey euh, Abdoul Ahad la man naa euh, c'est euh, moo mook jumaa njëkk ñëwto benn bu ne cinq mille personnes la waaw xoo nga xool loolu ak bibliothèque ak li mu liggéey ak li nga xam moom la mouridisme réalisé lépp fa tabaarakallaahu lépp ci seen. lépp lépp liñ réalisé daal. waaw ah. mi ngi aj mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi nekk meññiitum tàggat gi Sëñ Tuubaa tàggatoon aw nitam ci man nangoo liggéey. loolee mu leen waxan rek. Mhm. na ngeen fexe ba lu ngeen mënta ñàkk. Mhm. ci lu yéwénal seen wàllu diine ci projet. Mhm. wala seenu nekkin fii na ngeen sukkandiku seen bopp. waaw ak seen am-am mooy li ma tàmbalee. loole nag ca la ñu def ba nga xam ne tey ci lañu am autonomie bii ñu am mhm. fa tabaarakallaahu li ñu liggéey fii ci biir réew mi ak ci bitim réew lépp ci lañ ko delloo ci wàllu liggéey muy loo xam ne tey fa tabaarakallaahu tey boo demee Dakar mhm. man def naa ay ay enquête ci mhm. ci boo demee e, fi ñox Sodida maanaa atelier ya fa nekk yëpp muy ñay ñaw mécanicien ya ñay ministère yi lépp foofu zone industrielle la. waaw mooy ci maanaam su maanaam maanaam maanaam quatre vingt cinq pour cent ci ba may def étude ba. Mhm. lépp ay taalibe murid lañ. macha allah boo demee marché Sandaga noonu. Mhm. Tilène noonu. Mhm. Eh, village artisanal Soumbédioune noonu. foo ci dem fu ne boo di recensé maanaam majeure partie ba lu mat soixante dix pour cent minimum ay taalibe lañ kon activité yëpp. ci secteur yëpp murid yi ñoo ko yor te loolu lépp itam ñi ngi ko inspiré woo ci liggéey ci biir tàggat bi ñu leen tàggat bi ñu leen tàggat ci wàll googu liggéey dañ ko boole ci dañ ko boole ci jaamu yàlla ci jaamu yàlla ok parce que ci jaamu yàlla la bokk parce que li mu wax wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xëyri wa abi kon ah. <laughs> jërëjëf jërëjëf suñu xaadim moom li waxtaan wi <laughs> solo si tax na daanaka waxtu wi mi ngi dem sax te te ko mhm. waaye lii nii nekk domaine boo xamante ne maîtrise bi mu ci am euh, dafa weesu rek ay ay ay ay ay ay ay étude ay ay ay théorie yoo xam da ko am waaye da ciy liggéey mhm. liggéey ji def ci ay étude en tant qu'intellectuel mhm. def ci ay étude def ci ay enquête de terrain yoo xamante ne may na ko mu mën a dem jël histoire bi mën koo dëppoole ak réyalité bi nga xamante ne moo am sur le terrain ba mën ci génne lii ñuy wax loolu nag liggéeyu intellectuel la boo xamante ne wax dëgg yàlla lu am am solo la bu ciy wax sax da ngay yëg ne Euh, ku passionné la ci sujet bi nga xamante ne moom la moom la moom la moom lay wax ndax da ko da ci da ci liggéey liggéey bu rëy loolu nag yàlla na na ko yàlla na ko mur yëpp déggee noonu te mën koo hmm. jariñoo bu ko defee ñeneen ñi nga xamante ne ay gëstukat lañ itam lii ab tàmbali la ci ñoom buñ ko digloo mu ma nekk pist yoo xamante dinañ ci mën a sukkandiku man a dellu ci moom itam def ci ay ay liggéey yoo xamante ne dana gën a mën a jariñ bu baax a baax ñu xam ne daal liggéey ci liggéeyub Sëñ Tuubaa bi la bokk alhamdulilah liggéey ci liggéeyub Sëñ Tuubaa bi la bokk kon mu xanaa jërëjëf ñaan di sant bu baax a baax <laughs> waa daara ji Moukhaddamatoul Khidma mm. ci turu sëriñ Afia mm-hmm. di ñaan yàlla àggale nu ci bis bi amiin amiin ndax kat moom nii maa ngi leen maa ngi leen wax rek ne léegi ah. nii la waxaat ne moom la mm-hmm. warlu woon cant gi ah, ndeysaan xale yi sugro o nawaytu sugro o lada daari salaam wa inda tuuba ya bi jismin wa xilaam bi jismin wa xilaam jism bi mooy lépp lu aju ci kattanu yaram ak lu yaram produire mm-hmm. ci ay koppar ak lépp waaye wa xilaam nag mooy lépp lu xalima produire waaw lépp la <laughs> macha allah conférence yeeg <laughs> waxtaan yeeg lépp wa xilaam moo ëpp lépp loo xam ne lu bàyyi ko ci xalima lépp xam-xam la rek muy xam <laughs> xam-xam kon dundal ko ci xam-xam ak ci xitma ci sa alal ak ci sa doole waaw loolu la wax mooy bi gis min wax xilaam macha allah kon nag yàlla mu ci yàlla dimbale ndax liggéey bi kon lenn la ci <laughs> waaw jërëjëf tabarkalla macha allah moom li def particularité am <laughs> mooy day day day hmm. day jàngat mbir mu nekk bu ko bu ko bu jàngatee rek hmm. da nga yëg ne aw déggin la cee am woo xamante boo am solo la kon jërëjëf hmm. yàlla na yàlla dool la sam bu baax a baax gën a guddal fan wi te wéral la te defal la xam-xam bi yàlla na ci mur yëpp jariñu ci barkeb sëñ barakallahu taala wa barakaatu